ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-benn yu tëddee ni ñeent ci Sakal ak Vélingara ñett ci Diofior Kédougou ak Touba ñaar ci Kolda ak Mbour benn ci Kaolack Xombol Louga Tamba ak Thiès ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñi xam ne ñu ngi woon ñu leen toppoon ci biir kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukki malade ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan bu su démb altine fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn fukk ak ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñett ak ñeent fukk ak ñett wér nañ ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak fanweer ak juróom-ñaar ci loxo docteur yi wala ñu ñu ne ñu nekk hôpital